boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu def cloche bi foo leen mën ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo aoudu billahi min alsheytani arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa salli allahuma wa sallim wa barik ala sayidi al awalina wal axirin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa xadimihi wa sallama mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bañ sante suñu borom subhanahu wa taala julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi leen di nuyu nuyoo lislaam bu tedd mi asalaamaaleykum ñuy am mbégte bu baax ci àndaat ak yéen ci seen jotaay yu am solo yooyu ñu baaxoo ànd mu jàngatu xutba bi di ci ànd ak Cheikh Ahmadou yi muy xutba yu am solo yi muy def ci jumaa ji ca aliya yu ama am solo waaye di yu dëppoo ak jamono ñu ci ànd ak moom saa sune rek di di ko topp saa suñ dégloo xutba bi ba noppi rek bu ko defee ñu ànd ak sunu baay Habibou Gueye mu def ci ay jàngat def ci ay taxaw seetlu ngir mu gën a mën a yaatu waaye ngir mu gën a mën a jariñu ci njàngalem Cheikh Ahmadou Rafahi kon bismillah ñu tàbbi ci biir waxtaan bi ndigalu suñu boroom yooyu gannaaw pas-pasub nit ki bokk na ci bi ci gën a am solo muy julli mi nga xam ne ginu dajale fii genn la ca ca moom julli moomu nag dafa laaj waajtaay am na laytaay yu ñu koy lalal teg ko ca kaw ak yu ñuy muuraat ca kawam ñu séq ko moo tudd àtte yi ak charte ya ak ponk ya ak ya nga xam ne bu ca duggee dee su ko tuddee te julli gu wér euh, li tax nag mu mat a waxtaane te di ko baril te bañ di topp xew-xewi jamono yi rek di dem ndax xew-xew day xew yi te jaamu yàlla du xew yi mukk li fekk nit a ngi dund mu defi nag biñ ci gën a taqool nag moo mat a gën a sonne moo gën a mata a sonne ndax moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne bu nit ki saa bu ak ruuxam rotee ba ñi koy laaj di ko laaj li ñu koy jëkk a laaj mooy sa diggante ak julli bu ëllëgee it moom la ñuy jëkk a teg su ca jaam bi góorgóorloo kem kàttanam mënees na ko muñal yi ko des yépp waaye su melut na war mel dañuy tàmbali di seet te yàlla kum seet dana gis awalu ma yuxaasabu bihi al abdu yowma alqiyaamati assalaa fa in saluxat saluxa saairu amali wa in fasadat fasada saairu amali moom la mujj dénkaane itam bi mu demee ba nga xam ne mi nga wax làmmiñ wi tàmbalee damm suñu borom dañu fa wan ak niteem bokk na ci li mujj dénkaane assalaata assalaata mafuul nag bihi suñu ko baamoo ñaari yoon taxdiir lay tekki mën naa tekki taxdiir wala tanbiih assalaata asalaata jullee ngi nii jullee ngi nii waay waay sàmm leen seen digganteeg julli fonk leen julli taxawee leen julli li feeg yéen a koy man bismillahi irrahmaani irrahim mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu noo ngi dellu si waat ak yéen seen xutbab cheikh ahmad rafai al imam jum baaxoo amal ci aljumaa ju ne mooy xutbatul minbar boo xam ni wax dëgg yàlla su ñëwee rek doon benn dars bu bees tàq tey ji nag dars bi mu jëmale ko ci julli te dama wax ni gis nga julli maal asaf baamu gi ñu koy def bés bu ne juróomi yoon tax na ba nit ñi boo noonu dañuy waxtaane julli tey ñu bari duñ ko diglu te maal asaf baamu gi tax na daanaka nu gën koo réere ñi ëpp ci noonu ci ni ñuy julle léegi nag euh, jàngalekat boo xam ne dafa am pédagogie mën a jàngale ay minutes yu néew mu indil la jëmmi julli ak la ci aju ak solos julli loolu mbokk yi mat naa topp boo ko digloo ba noppi nga garde ko di ko nafar nafar gi mooy di ko diglu ndax lan ndax nga mën a bokk ñi seenu julli tane ndax kat jamono yonente bi alayhi salaam ba julli wàcc ci seen kanam mu di ko jàngale di di ko defandoo ak ñoom am na ñu ko tële lool ba yéen a ngi fàttaliku hadiisu musiu salaat ki ñëwoon ci kanam yonent bi alayhi salaam julli ba noppi mun ko ee eh, dama ni julli laa wax waa ji laa di kabaraat julli sëlmal munu ko dama ni nga julli ba ñetti yoon munu ko dama ni julli waa ji na ko ah maa ngi waat ci kilo yoon nii man nii laa mën a jullee alayhi salaam soog koo jàngal nag guy julli fu mu toll la ca war ci ak dal la ca war ci ak yamoo lépp mu jàngal ko kon bu ñëwee tey jii ci jëmbi julli indi waajtaay ba ca war rek boo ko defee am na lu muy am na lu muy génne ci yow am lu muy def ci yow muy njàpp moomu mboolem cër yi ngay raxas yàlla mën laa defal tawféexu ah, bët bi li mu xool ci bakkaar mu dañ góosal moo nopp bi li mu déglu woon li loxo bi laaloon li tànk bi laaloon li nga tegal ci bopp bi li gémmiñ gi waxoon li nga noy yi wan ilaaxiri ilaaxiri ndekete kon nun yàlla danoo tànn def nu xeet woo xam ni li ñuy dund ci kaw suuf nu koy tuddee ay ponki lislaam loola mooy fóot suñuy bàkkaar yi nii am boo xëyee julli bu tisbaaree nga waa jam jàpp julli ñu jéggal la bàkkaar yi nga def ci diggante jullik subaak ak jullik tisbaar nga dem liggéey ba tàkkusaan jot nga ñëw julli jàpp ñu jéggal la bàkkaar yi ndox diggante tisbaar ak tàkkusaan bu timisee nga julli ñu jéggal la bàkkaar yi dox ci diggante tàkkusaan timis ci diggante timis ak gee diggante gee fajar mbokk yi fa amee bàkkaar alaakulli alin kon jot na noo xamal moom sëriñ bi nii am solo julli tax na yonente bi alayhi salaam bokk na ci li mujj dénkaane mooy julli te bokk na ci ponk yi suñ borom jëkk digal yonent bi alayhi salaam bi mu nekkee Màkka au lieu muy ñëw Médine nga xam ni euh, dañ la naa ñi ngi farataal farata sàngam ci ñaareel atu gàddaay ga waaye julli moom Màkka la wàcce te mu bokk ci li ñuy jëkk laaj jaam bi bu yowmal xiyaamee noo def ak julli bokk ci li ñuy jëkk a peese waaye bu baaxee ndeysaan li ci des lépp julli yóbbaale na leen xam naa mi ngi mel ni ngay voyager rek jël bagaas yi ñëw aéroport euh, duñ laaj ana sa yére duñ laaj ana ana ana dàll yi ci bagage yi duñ laaj ana say mbaxana ana say portable moom daal wenn kayit lañ lay laaj rek passeport bi bu ñu xoo bu ñu xoolee passeport bi bu baaxee nag waaye jullit gis nga ko rek murru ababakrin bi solaat feebar bu mujj bi moom yonente bi alayhi salaam feebar ah ñu ni ko yow lañuy ñuy nëgg ni ko yow la mbooloo mi yëpp di xaar booba tàmmuñu keneen jiite leen alayhi salaam ah, wax leen na Babacar jiite julli ñu ni tekk rek Aïcha ñëw ni yow ku baax ki yow xam nga ne Ababacar borom xol bu weef bi ni la bëggee Babacar du mën a jiite mu ni ko wax leen Babacar mu jiite ndeysaan jóg ñëw fekk mbooloo mi ñu lëng ko ñu defe ne mooy jiite mu ñëw toog toog ci sàppe si ànd ak ñoom julli sëñ bi kon indi na sarti julli yi tax julli wér muy laab waaye laab jàngale na fii ni nekk bokkul ak set waaw laab bokkul ak set al lafaafa ak saxaara gis nga kon ndeke ndox mi mën naa seetal waaye munta laabal mën naa set bañ mën koo sangoo mën koo togge waaye ndekk munta laabal loolu lu mat a bàyyi xel la ci junj bi mu def foofu ala kulli xaalin gis nga ko nu war a jël ay engagement nag ci ndegam ki yàlla yónni woon jéggal ko ay bakkaaram moo moo doon toggoo ay coono ci julli rawatina yow jaam bu bi nga xam ni yaa ngi ak sa bàkkaar yu bari yi nga xam ak yi nga xamul mbokk kon mi ngi interpeller mi ngi yi mi ngi ñaax jigéen ñi nga xam ni xewu jàmbur wala seen xew bu ñëwee duñ julli rawatina nag bisub ceet bi nga xam ni amoo ngànt dara jotu la waaye la nga gën a fonk mooy la ngay def ci sa kanam sol yére yoo xam ni awra yi day génn ngir ñëpp mën laa xool da koy danga koy bañ sax ba da ngay ñëw fekk paa yi toog nga ñëw jox leen loxo nuyu leen làng ak ñoom fotow yëpp wa am ci bis yoo xam ne bis bi nga war a gën a jaamu yàlla mooy bis bi nga demee sa kër borom kër ginnaaw amoo ngànt mbokk yi kon rawatina ñi faatu bay teñ xamuñu woon daara ci seen fardul ay ni ñu leen di jàngal nu ñuy sangoo ak nu ñuy tiime ak nu ñuy jàppe moo taxit loolu nag war nañ cee jóg ku ne bay ci saw laaj ci mbokk dëj boo dem jawalal ci ñey muuru soññi leen bu fekkee xam nañ ko fay la alhamdu buñ ko xamuloon nga def la la war yow man de maa ngi ci bu baax alakulaalin kon euh, feeñ na ci biir nag njàngalem suñ tubaa ni mu fonki julli ndax ginnaaw bi dina ci ay téereem nii jullit bu dem ba yàgg mu ne ma daal julli daal euh, duma ko def wedde ko wax ni waru la kooku la tuubloo ñetti fan waaye ki ni ah julli kay lu am la waaye man dama ko defatul dañuy bàyyi ba waxtu wi jëkk a jot bu jotee bu tuubul nag ñu rey ko buñ koy bëgg a rey bu tuubeet rey rek keneen dul ko dolli alaa kulli haal vraiment kon ak xisa bu am solo bi mu ci nettali euh, am na beneen xisa boo xam ni euh, booba defe naa ni kenn ci kilifay Tuubaa yi la ñu koy laaj jàpp ak tiim lan moo ci gën mun li waaw loolu ngeen dafa ak lëg boo doon ba ca àll ba nga ñëw rek fekk ngeen di ko rëbb nga ñëw tiim ko ak ki ko jàpp ku ci ku ci gën le ñu ne ah xanaa ki ko jàpp mu naa noonu la demee ñoom ñaar kon ki amul ngànt ci ñaar yépp ah moom mu jàpp loola mi ngi mel ni mooy jàpp lëg gi ki ko tiim lëg lëg gi daw wala mu tiim ko weñeeku kooku kay daa sonn rek waaye loolu nag mooy li Sëñ Tuubaa wax ni tiim boobu waa ji tiim te fekk mën naa jàpp amul ngant mu tiim nee na jaxanama dong lañ cay moom moom la cay amee moo ko cay fekk ok kon nañu delloosiwaat xalaat yi bu baax a baax te gi bàyyi xel njàngalem sëriñ bi ci xutub yi muy def nga xam ne xutub la yoo xam ni benn bu ci nekk day nekk ay mawaayis yoo xam ne ak i zawajir waaye ak irshaadaat yoo xam ni ay taskiraat lay doon loolu nag baax na ci ki jàng ba noppi eh, day dalal xelam moom mi fàttewul waaye baax ci ki fàtte woon mu koy fàttali waaye ki jàngagul doon kuy jàng ci xutba yi kon noo ngi yem fii wàcc sunu kàddu rek di ñaan borom bi yàggal ko fi yàggal fi mbooleem sopp yi nga xam ne ñu ngi ko topp te tëppuñu ko dara lu dul xam-xam ndax mbir yi day bëgg yàgg te ak coppeeku amul te mel na li muy joxe fa muy jóge du fa jeex ndax xam-xam la te yàlla tax te xam-xam dëgg-dëgg du jeex ndax àdduna li ñuy dund li ci jar jubbanti dafa bari lool te àggagul fa nu jëm te boo xamee di nga xam ni fii lañu war a jaar te jaarul na fa kon moo tax ma wax ni kon buñ ko dee diglu daal dañ ci jële ay njàngat yu am solo yoo xam ni dinañ ci defaroo wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. boo leen bëggee am mboolem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen am mboolem vidéo yi fi bàyyikoo